jërë ngeen jëf mbokk yi seetaanu làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte mbokk yi comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci jàmm gën Jota Kayta mi nga xamante ne moo war a bëre mbokk yi ñu ngi fii ci jàmm gën Sunjata Kayta dugg si na sëñ Bas dañuy xool su Sunjata Kayta nan la dugg see ci biir mbokkam nan la dugg see ci biir xam di jàmmam nan la dugg see ci biir xaritam Basiru Sunjata ngi na la di daw maama lii lu mu doon. non mais ji lii wasaare lamb namu naa la mon frère. doom day namu naa la. maa la raw barke sëñ Fall. li ngay ci biir lu mu doon. munul ñàkk suñu day suñu doom nday di suñu xarit xam nga. Ah. waaw bu xewlee bis bu ñu nii war nañ mën a bàyyi suñu yëpp entraînement la ñu war a dem nii sax. mais bon ki bokk ci ñun ci ñun la bokk. ki nekk si ñun ci ñun la nekk. mais nag sant yàlla d'abord bi ñu boolee ñu bokk. loo xam ne mënuñu ko séddoo muy benn gox bi. te nag lii mooy jural gox. waaw nit xewle nga bàyyi sa yëpp ñëw ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam bu kawe njottam ci kattanu yàlla. wane ngeen ngeen drapeau. Euh, euh, jàmm effectivement loolu mooy li raisonnable. mooy li yoon ginnaaw moom moo njëkk a bëre. ñu ngi koy ñaan yàlla defal ndam ñeneen ñi stop ñëpp aussi yàlla suñu borom defal leen ci ndam bu sedd seen. jaajëf Maama Mbër maa lay maa lay fay. waa baax. Double Tyson la ci open press Soundiata Keita seen diggante yéen sama doom day nekk ku baax nekk koo xamante ne ku neex a nekk ak. waaw di ko ñaanal ndam rek wax dëgg yàlla su ko yàlla fay xolam incha allah day am ndam waaw liggéey nañ lu ñu liggéey nag lépp pare nañ waaw combat bi doon suba suba la sax pare nañ waaw di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam waaw. nekk yow foo toll. waa man maa ngi prépa man maa ngi waaj par maa ngi ci bi di compétir maa ngi ci àll bi di compétir fan yii maa ngi ci àll bi di compétir comme amaguma combat ama combat bàyyi ma ñaan lañ ma doon wax euh, Kaolack taxawagul ñu ma wax maa xoyantaan gàmm bi taxawagul boobu ba léegi mais teewul xaaruma kenn maa ngi waaj gàmm maa ngi waaj. taan ak bàyyi ma ñoon a. xoyantaan bàyyi ñoon bu fekkee Sénégal la ñu jox ma Baye Mandione moom a gënal bu la ñu ma xoyantaan moom a gënal. kon dëkk boo dem rek dafa am koo waaw parce que liggéey naa Gambie loolu ba war a bëreeg roi bi foofu. waaw bu dee Kaolack tamit maa fay buur bi waaw maa ngi buur kon war naa mën a bëreeg champion yi nekk fii yëpp waaw. Double Tyson ñii dañ naan doomu Gambie la man foo gën a féete wala doomu ñaari réew yëpp. man man doomu ñetti réew yëpp laa jàmm gën laa màggee jàmm gën laa màggee ñu bëri dañoo fa laay faral di nekk jàmm gën laay faral di lu bëri mais damay bëre Gambie damay bëre Kaolack damay bëre Dakar waaw man tout part fépp fépp laay bëree fépp xaaruma xaaruma promoteur xaaruma keneen fu ma am rek danaa bëre su ma amee Gambie naa bëre ma amee Kaolack naa bëre ma amee Dakar naa bëre. arène nationale dañoo bëgg mbër yu xotteeku ko est-ce que bëgg nga faa bëre mbër yu xotteeku. waaw laaj naa Forza Malick Niang Forza Malick Niang bu dee ñoom ñu may bu dee ñu may dégg Forza Malick Niang ay naataango lañ yow xanaa xooloo ma ay naataango lañ Forza Malick Niang laa gën a soxla ci lambu Dakar fii bilaay walaay taalaay Forza nga yëngal ko. ah waaye ñooñu laa war a mën a bëre ay naataango su su ñooñu ñoom ñaar su dul ñooñu du ma bëre Dakar su man maa ngi 18 combat war naa mun a bëre ak ñooñu. waaw kuy ndam bañ naan yow yaa war a mën a bëre bu Gambe war nga mën a bëre ak ñooñu. waa lamb la. kon kaay ci tuusu ñu xool tuusu su jota. lii cey lamb saa yu jotee nga gis xale bu ñëw saa yu jotee nga gis xale bu ñëw ndeysaan. Liss Ndiago ngi noonu gaay yi yuuxu sa diggante Kéweul. waaw dañu bëgg a xam noo waajee combat bi. waaw combat bi ni comme ni ñu daan waajee suñu yeneen combat yi combat bi waaj nañ ko népp lañ ko mën a waaje lépp loo xamante ne dañ koy préparé ci combat rek def nañ ko di ñaan yàlla nag yàlla may ñu ndam. Sénégal est-ce xam nga ki ngay bëri. combat revanche la wala du combat revanche. waaw mun nañ ne revanche la mun nañ ne du revanche waaye ñun moom bu arbitre sifflé li ñu war a def rek la ñuy waaw entraîné li ñuy entraîné te bu àggul sifflé yi yëpp danañ xam ne liggéey nañ waaw. suñu jota ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di siyaar bu baax a baax kii nii la bu wasaare lamb. waaw tey dañoo ñëw ci jàmm gën. waaw gis jàmm gën si Kapp Mbaaw ñëpp génn. waaw sa diggante ak ñoom lan la. mooy jàmm ak salaam rek. jàmm gën moom fii boo fi nekkee waa jàmm gën ñoom fulla lañ boo leen boo leen jàppee rek ñu jàpp la wax dëgg yàlla jàmm rek laa sekk ak waa jàmm gën ñëpp ndax waaw lu ma dugg ñu dugg si mooy ñëpp waa jàmm gën tarkindaa yeeg waa euh, waa waa saret yeeg ñëpp waa ruku jemberes booy saret yi ñëpp lu ma dugg rek ñu dugg si ah, waa daaru salaam ñëpp zone sam-sam buun foora ñëpp lu ma dugg rek ñu dugg si kon dama leen di gën a woona dina wax làmb ji ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp jàppaat ci làmb ji ñëw feesal stade bi ñu jàpp kéwél daan ko ñibbisi kenn du werante ni kenn du werante ni kenn du werante ni Soundiata champion la. ndax maa bëreeg Aliou Mané. maa bëreeg euh, nu mu tuddati. Pape Sène Pape Sène rek doy na ndam. rawatina nga jël kéwal lan moo tax lan moo la dugal ci kéwal. ah kéwal lam moo ñu boole rek. lam moo ñu boole parce que moom. lam moo ñu boole parce que moom xale la xale. te dafa prouvé. kéwal moom kenn dina prouvé wul. boo xoolee ay moromam xaaj bi yëpp jeexal na leen. kon lamb moo ñu boole te Aliou Mané moo ñu boole dafa am ndam ci Aliou Mané ma am ndam ci Aliou Mané loolu moo ñu boole. mbër mi nga war a bëreel di dafa mën a xeex tam ñu bari ci làmb dañuy wax ni yow sa xeex dafa des. waaw loolu tamit ndax yaa ngi koy waaj. waaw maa ngi koy bu baax. bu jour baax. bu xeexee. dina am lu ko lu dina lu ko gën lu ko gën a métti ci àddunaam. bu xeexee loolu dina ko dal. bu ko leer laa la wax. bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko. maa ko gën a pare foofu day dof dof lu doful sax. xam nga ni kéwél dafa jeexal lu ko yoon kewal xam naa ni kenn xaalalu ko yoon man tamit kenn xaalalu ma yoon de. dama faayit ba yegg si. faayit billaay wallaay dama faayit ñana di nekk ak sama gars yi ñoom feu rouge ñoom Mbaye Gueye Faye ñoom Jamso di contact lu métti ay double Tyson ñoo gën a diis ko leen ñoo ko dàq bëri fop lu leer nañu laa lay wax. Sinjata Sinjata kon tey Sinjata. Sinjata daan na. waaw lamb bi demoon naa si daan bi préparé. préparé entraînement entraînement lu métti daana nee naa semaine yi boo leen boolee euh, bis yi boo leen mooy semaine semaine yi boo leen boolee mooy weer. fukki yi boo leen boolee mooy mooy mooy at. fukki weer simple yi ñooy semaine. semaine yi ñooy weer weer yi ñooy at benn bokk seeg sa morom c'est moi Souniata je sais qui je suis. Souniata tey ñu gis Souniata tey ñu gis yow teewul mi ngay bëreel dafa dugg jàmm gan fii. daan fi sa mag waaw tey muy waxaat ne ma moo moom jaam a gën fii nii dugg na fi duggaat fi tey lay mujjee wala day continuer di dugg fii ba tey lenn de naa ko xamal buy jaar bawol day teggi dootul par noppee naa dugg jaam a ndax bu ma boo ko jàppee ba bàyyi ko dina xam ne jàmm gën fii bu ñëwee ba bés caare day teggi yoonu géej gi lay jaar. parce que pare nga suñu ñaata kéwal ku mu day diire combat bi day diire da yóbbu ba nga. so pare naa pour bëree moom est-ce que nga entraîné loo xam ne tey kéwal lu indi ngay. damay taxaw di contact ak ay 15 personnes di xeex xeex bëre dóor di xeex ak moom 15 personnes mais moom bu dee góor la dëgg gëm na boppam li ñuy wax mi ngi moom. na taxaw ñu jëflante combat bañ a yàgg ñu du xeex bëre. sóoraale ngay chaque jour da ngay sóoraale kéwal day xeex day xeex est ce que bëgg naa nax ci combat bi jëm bëre ak yow. yaa ngi bàyyi xel loolu bu baax. déggoo li gars wax naa sukuñee sukuñee gu jommal na la xamuma sax bu ma xamoon du ma jël. laa ma xamoon du ma jël. lu leer laa wax. waaye buñ jàppantee ba ba taxari ko fu ma rombatee suuf la wax. sëñ Atta duwaañe sëñ Atta waaw géwal dafa dugg fii daan maama la ñu daan boobu doo bëri yàlla bëri na loolu wu ko lamb moo ko boole woon ak ñooñu rek mu te ñooñu dañoo juum mu daan leen ma la ñi ngi ñaan yàlla nag préparé nañ ci tous les plans ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam kàddu gu mujj gi lan la kàddu gu mujj gi mooy maa ngi woo jàmm gën ñëpp di sant Fatou Bintou Ndiaye madame Ndofène di sant Lay Ndiaye le tour promoteur ak jabaram neexat yi di sant Siteu mi fi jógee jam show Mbaye Gueye sama entraîneur di sant Mama Lamine di sant sama gars yi ñoom Assane ñoom Ahmed gis naa ni ñuy sonne Mor Mbaye ak Mor Mbaye ak Abbas Luis Ndiago sama rax Zé Baye Fall am na combat yàlla na ko yàlla may ndam si la wax di sant sama rax Mor Mbaye ak Abbas Ibrahima ñoom ñëpp dañuy sonn ci combat bi nees sama papa maa ngi koy sant moom laa waroon njëkkee nees xelam mi ci man fu mu toll depuis États-Unis foo de yëre bii ma sol tey foo de barki démb laa dem di ko jaale yaa yaam xamal ne ma maa ay mbokk la jàppale bu mat sëkk ndax ndax xam nga ne combat bi. loolu mooy feebaru jàmm bi mais à suivre loolu mooy feebaru jàmm bi mais à feebar. mais à suivre. loolu la def jàmm nga xam. à suivre gars yi nañ ñëw jàpp ci làmb ji. affaire dafa métti. lu ñu amoon def nañ ko ci. suñu mbokk lu ñu amoon def nañ ko ci mais ba tey jàppale bi dafa des métti na trop sama moromu mëri ñooy mujjee jëkkati xaalis di ma ko jox ñu ngi woo honorable député di ko wax nañu jàpp ci loxo combat bu baax monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall Aziz Gueye ñëpp ñu leen woo nañ ñëw jàpp ci làmb ji